للمصطفى نويت ما يجدد سنة أخرى وإني أحمد للغادة الأجر والمسال بالتي والاسم وإنس الرسال للغادة الأجر والمسال بالتي والاسم وإنس الرسال soxna waalo wuy ak naan ni bu leen ko góolu ca yàlla jëf na baay soxna waalo wuy ak naan ni bu leen ko góolu sëriñ bi nax nañu ba génn àdduna walla yi ñu bett naa ci àdduna sëriñ bi nax nañu ba jot ñu àdduna wallaahi lii métti naa ci àdduna tey yàlla jël na ma bay soxna Maram Mbacké wéyal naa ñu ni bu leen ko wóolu Seexul Xadim bindal na bis ab leetar jox ko sëriñ Mbacké jaxate tey mbër daan ko boo xamante ni Cheikh Saliou wàcc na alxuraan jox ko Saliou keroog ba Cheikh Saliou wàcc alxuraan sëriñ bi woo ko jox ko leetar tere woon daan ko Cheikh Bamba sa baay moom la ko jox moom la ko jox soo ma ko lee naa la ko jox sëriñ bi yar ba xam na Bamba ba noppi sax wuyu ko wan ko ba dox xam mu baax sëriñ bi lànk kenn xamul la mu baax bu doon kuy tasaare daata kër muusi wala la bëgg àdduna kon ne yëf ya sa fiw wallaay yàlla moo ko ñëw bëggul leneen lu dul neex yàlla jaaraama sëriñ Saliou Mbacké Xilaas yaay généralu Bamba yow Mbacké amoo moroom jaaraama sëriñ Saliou Mbacké Xilaas yaay généralu Bamba yow Mbacké amoo moroom sant la war nañu cey Mbacké yow amoo maas yaa ñu dimbali Mbacké sa waa amoo moroom cey Mbacké dal la dinañ la war bañ tere ngir yaa ñu def antal tereet yaa sotti xam-xam yore ci sunu xol ci xar-xar